alxames aljuma gaaw a jële altine àllarba alxames aljuma gaaw a tibe altine talaata àllarba alxames aljuma gaaw a tibe altine talaata àllarba alxames aljuma gaaw a tibe salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk yi saxoo safoo di seetaan Walfadjri rawatina émission bi ñuy wax yor yor ñu ngi dellu si waatati encore une fois de plus euh, sans la caba naati xam naa semaine prochaine ànd ak Mass Mboup comme nun koy saware faral di defee ñëwaat dellu si waat seen émission bu mag bi nga xam ne euh, leeru jamono la fii la lu bëre bëri bëri di leere fii la ñuy dégloonte fii la ñuy waxtaane sara yëf yi euh, euh, xuloo xul xul mooy wax nga xuloo nga wax ma wax nga wax ma wax ñu xule ku nekk wax sa xalaat waaw ci biir weer nag ci wolof weerante dafa am ak weerante mhm. waaw ngay weer may weer ñuy weer weer yi ñu ne mhm. kii kat ñu ngi weerante ak kii mhm. bokkut ak weerante ngeen jël póotum biir wékk ko ci ligne yi weer ko loolu lépp di loo xam ne lii lu war a xàmmee la ndax waxtaan pour juboo pour nekk benn pour ànd àndin rafet a rafet mooy tax toujours euh, leerug jamono surtout ci biir ci li ñuy gis nii ak ci bitti ci ba réew réew sax am na ci mhm. yàlla na yàlla yokk te dollinu sama xel dem ci euh, ay way euh, lompañ yoo xam ne mhm. dañ leen di defal journée te ëppoon na journée mhm. nan la nit mën a rombee kuy dox di dem yor yatam wala muy euh, dox ci suuf si raam walla muy nekk ci puus-puus doo taxaw xool xalaat kii lan lay lekk ndeysaan lan lay naan mhm. lan lay dunde mhm. kan moo koy solal fan lay fanaan mhm. mais déedéet da ngay waaxu rek romb ko dana waxa waxa wax ba kenn dégg ko mu mujj wut haut-parleur téye ko ndeysaan pour ñu dégg ko mais du tax ñu dégg ko de wallaay wallaay mais moom lay dundee te moom sax moom ci boppam foo ko fekk mi ngi kaf mi ngi foom mi ngi ree waaye ñun ñoo waroon a amaat beneen gis-gis beneen attention du affaire sax dañ leen di wax wutal leen liggéey leen liggéey mais ki ngay wutal liggéey. Mhm. da koy wutal tey bu amoon tey liggéey sax fan lay jaar ba dem fa. Mhm. bu dëkkee ci liggéeyukaay bi fan lay jaar ba mën a àgg place mhm. réew moomu du réew moo xam ne mii réew muy xalaat. ay néew di dooleem lañu. ndax néew di doole foofu la tàmbalee ah. dëgg la dëgg la bu nu woon tey mairie bu nekk mairie bu ne. nay jox way lompañ bu nekk junni. ci quartier am matunu. fanweeri junni matunu téeméeri nit. Mhm. ñu di leen di toog du dem bay tàllal loxo sax. Mhm. wala ñuy toog ci mbedd mi. wala leneen di leen ci dal. Mhm. parce que nit lompañ na ba dem ci feu rouge bi. ay doomam yi dara jotul. yàqoo fa. ndeysaan yokk société bi. dolli source de débauche si nga xam ne moo xam doom ju góor la da leen mujj daf ko nax ko ba di ko jaayloo ba di ko dugal ci naka suñu doonu. bu dee doom ju jigéen kaay jël sarax jox sa yaay. Mhm. ainsi de suite ba miin ko. ba dugal ko ci lu mu warul woon a donc boo bëggee rek la société. Mhm. da ngay dem dëgg la nit ki da nga koy jàngal nu muy nappe moo gën nga di ko bàyyi foo nappe rek ñëw jox ko jën yu demee noonu. Mhm, kon am na sociation bi daal ci ñoom. surtout comportement bu nu waroon am suñu biir. plus d'attention ci ñoom. ou bien les mairies état bi sax sori na. mais mairie ci koñ bi rek nanu fexe ba waññi leen mhm. répertorier leen weeru dee rek ñu jël ci kees gi dimbali leen ñu demaat toog seen ay kër parce que am nañ fierté mhm. jaaxle leen tax dem ci mbedd mi ah. dëgg la dëgg la ndax loolu lu métte métte la loo xam ne mhm. euh, dogalu yàlla la am na ci tubaab yi am na ci américains yi ñi gën a développé sax am na ñoo xam ne ñu way lompañ waaye ñoom dañ ciy def yitte def ci pexe ba nit ki du wëndeel ci boppam li mu yaakaar ne looloo ko war a dal di ko ko jox. Mhm. déedéet loolu rafetul maas xam naa boo nuyoo ñu kii le temps que ñuy teg thème bi nga xam ne. Mhm. moom la ñu indiwaatal ci euh, thème bi nga xam ne mooy yor-yor. Mhm. Euh, su ba midi ci kàttanu yàlla. jaajëf euh, sëriñ baara maa ngi lay nuyu bu baax di la nuyu ci nuyu bi gën a sell di waaleykum salaam wa di nuyu téléspectateur Walf TV di nuyu ki nga xamante ne mooy technicien yi jàpp ci ginnaaw. di euh, ajaratu Penda Diallo soxna Rama ak Aysatu ak mhm. El ak Cheikh mi nga xamante ne ñoo nekk ci technique bi bu baax a baax di nuyu aussi ñi nga xamante ne mooy euh, euh, téléspectateur yi nga xam dañuy safoo mhm. di bëggee li nga xamante ne mooy yoor yoor ndax mhm. fii la lépp di leere fii la ñuy tegee solution yi pour dimbali askan wi di wax ne rek Sénégal ni ma koy faral di waxee cin luy baax la amul bu sedd waaye dara bu bàyyi fàll ku ne am nga ci morsa baara da nga dugg fu am solo prendre ses responsabilités par rapport à ces handicapés là da dugg ci entreprise yi dugg ci université dugg leneen amul lenn faveur bu ñu tagal handicapé pour mu mën a dem loolu xam naa thème à part la. Mhm. Euh, Serigne Bara maa ngi lay delloo kàddu gi. wallaay comme ni nga ko waxee léegi rek euh, fàttali nga ma bu baax Ajaratu Penda Diallo Guèye euh, Ramatoulaye ak Aïssatou Diagne Abi Ndour mhm. surtout Mame Sidi. ak euh, Samba Thiama ah, ak Maam Toulaye defe naa ñu dellu si ci reportage bi nga xam ne moom lañ leen doon tegal depuis trois jours ñu xool lan la demee. sama rakk ji ma tax ñëw fii tey wal fajri yi nga xam ne mooy tele àddina bi télé bi dimbali nit ñi tele bi nga xam ne ku jaaxle boo fi ñëwee yàlla faj sa aajo moo tax ma ñëw fi sama rakk baax lool di xëy di wàcc commencé na tabax douze waañ ak beneen néeg na bu paree da koy def saal boobu dara jotagu ko mu ngi liggéey di dem di wàcc di ñëw man mii la daan jox xaalis may jënd si ma di jënd yëpp. rakk bu góor rakk bu jigéen góor boobu ma rakk bu jigéen ñëpp ay góor lañu. waaw bu góor baax lool tamit am yërmande. dama bu mu commencé tabax bi man la jox ne ma del jëndi xaalisu ciment boobu dara jotu commencé gul mais bu mu commencé tabax bi ba tabax bi rasé douche bi pare waañ bi pare beneen néeg bi nga xamante ne daf ne woon da koy yeggale pour def ko saal ba dal doo nga ci des si la demee palaasam fekk fa neen bu ñu xaatim xëy na mu xalee ko jàpp xëy na ak xamat xam ñàkk xam mu yëkkati neen ba sànni ko neen ba toj te dañ cee bindoon alxuraan. si la la yëngu moom place am si la la. visiterie la asalem marché asalem ba nii ngay waxee waxe ni may waxee ci tali bi tey bu ngeen demoon marché asalem di ko la laaj dañ naan la xale bu baax xale bu yaru xale bu fonk nit xale bu respecté liggéeyam mosuñu koo xamal lu bon ba mu commencé dem. nen ba jël nen ba toj ko nen boobu ba mu ko tojee fekk na tabax bi raase na xam naa loolu lañ doon xaal ne ko du yegg xam naa boog ndax comme see mën a tabaxam mi ngi xëy mi ngi wàcc tubaar fa kàlla macha ñu dem ba mu raser douche beeg waañ bi pare na te beneen néeg bi des mu war a raser mu tojaat beneen néegam bi mu dëkk taqale leen yeggale ko ci la demee place am gis fa neen ba mu fa gisee neen man mi bokk moom rek bàyyi waxuma ko daf mu ko doon nëbb jabaram ji mu nekkaloon ci kër gi la ko wax jabar ji tamit di ko nëbbu xam nga la moo tax mu dem jour bi nga xam ne nekkatul ak sagoom jël na biteel bi ba doyal dégg nga wax ji dafa nekk sa tournal ba marché bés di déconné. déconné bu demee nan. mandi di déconné sa mbedd ma sa tournal ba. ak bu góor fekk sa tournal ba munu koo indi dégg nga wax ji bu baax munu koo indi léegi bi nga xamante ni ñàkk na ko bañ a indi mu ñëw fekk ma sama biir néeg mun tël sama rido na ma yow ana diw ana yuusu ma ne ko gisuma ko li tax ma ne ko gisuma ko mooy dafa ñëw fëggul dafa ñëw rek aj sama rido ne ne ana diw ma ne ko gisuma ko. xam nga wax ji ndax ñi ñàkk maa nuyu bi ma ñàkk nuyu moo tax ma tontoo ko noonu mu dem si taawu yaayam daal di ferure bi moom tamit daan ne ko waxal si mbayang wala ma wax si mbayang kooku ne ko waxuma si mbayang waxal si mbayang ay xaritu jabaram bu ñu fa ñëwee jabar ji da doon nguni nguni ak moom ci seen néeg néeg jabaram moom néeg waa ji sa biir kër ga bu ma génnee di dem wan ak nag laa xelmati loolu fekk sama rakk commencé naa am lu mu mel daal ma xam ne kii am ni mu mel melu ko woon téere yooyu mu wax moo ko ndax moom si ay téere lay xëy si lay gont si lay wàcc si si lay xëy si lay gon si lay wàcc ndax ba mu jëlee li muy jël ba pare daal di dem asalem yàlla xiir ko si ay nen dafa dem jënd dafa dem jënd tabletu nen toog fa toj ko tojo tojo tojo toj ba nen yëpp jeex xaritam bi nga xam ngi dëkk asalem dend ak moom ñëw fekk ko fa bi mu ko fa fekkee mu ne ko waaye mu ne ko ah mu ne ko looy def nii mënul wax ak moom moo jël taxi ñëw indi ko si biir kër gi bi mu ko indee moom dafa màtt xarit bi ndax mandité matt ko ba loxo bi dagg li muy yore da koy maye ci mbedd yi day taseeg yow nga ne ko na nga def caam mu daal di yëkkati 10 000 léegi jox la musu ko def musu ko def musul naan itam li nga xam ne moo di sàngara sàngara ba mu juddoo ba mu tolloo ñett dañ ko si xiirtal ne xanaa ana nen boobu nen bi nga xam ne moom la gisoon si palaasam palaasam boobu la cay jóge rek genn wàll gi ca lay jóge nen bi nen yi kese la woon wala dafa am lu ñu ci bind xaatim ay alxuraan lañ ci bind mu ñuul kukk nen ba mu jotu ko yóbbul ñu liiral ko ko boroom xam-xam ne xool na la lañ si bind moom ko ne xër nee rek sànni rek ca la xam nga nen moom foo ko sànnee mu toj surtout nen bu ñorul da ca rawam toj na toj na ndax ba mu tojee fukki fan ak juróom ba mat 20 jours si la commencé rakkaaju sama jëkkër kenn du ko mën a gis xam nga lu tax sama jëkkër man la bëgg man it moom laa bëgg ndax sama jëkkër bonut bu wàccee du ñëw ci kër gi naani ji na sàngara balaa ñëw 4 heures du matin man fajar ndax dama naan fan la nekk ci àll. est-ce tam daawul naan dinañ ko nëbbata mosu leen ko yëg. musul naan musul naan. bu masaan a gis ku naan danaan ah man nan la nit di mën a liggéeyee xaasam ba pare di ci def lu bon lii. billaahi wallaahi yàlla ma tiim damaa julli léegi ba ma bonul de dafa toppoon bànneexam moo taxoon mu def lii mu def ndax sama jëkkër musul bon seen waa kër muy seen taawu yaay ku baax la jabaram aawa kër gi kenn gënu ko. nee na xale góor yi doon ñëw ci mbaaram di liggéey moom ñoom ñoom la jotee loon ci affaire mbaar mi. mbaar mi mbaaram la e, woo leen si wala mbaar mi mbaaru kan la. mbaar mi seen nijaay leen yoroon ñoom ñëpp ci mbaar mi seen nijaay làq ko mais ña mu yoroon xëy na mbokk lañu mais xaw ma leen. bala maa jox kenn mbaar bàyyi sama jarbaat bi nga xam ne ndeyam ki ko jur ak ki ma jur ñoo bokk ndey baay maamam sama jarbaat la du ma bala maa laax di jaay damay laax lekk yëkkati mbaar ma jox ko ko moom mii. dafa mu neexul daal. waaw ña mu neexul ñooña bawuñu ko topp ko ba loola weesu. ñooñu ay jàmbur lañu wala ay mbokk yi kese man ñooñu xaw ma leen ba léegi waaye ñoo nekkoon mbo woon ak moom ca mbaaram. daal euh, ñu mu génn mbaar ma jox leen ko. jox leen ko wala ñuy jël mbaar ma ñoom moom sax bu doon dañuy jël mbaar ma may ko jàmm sax wala mu ne ci ànd jàmm man la mu mën mënoon doon liggéey doon xëy doon wàcc yor jabaram yor këram continué noonu sax ñun jaral nañu sax ñu bàyyi leen ak mbaar ma. kon bu dee loolu la ñu bëggoon itam mooy dem génn mbaar. am am na kay ndax mi ngi nii gàddaay na am jël keneen teg ko fa si biir place ba muy liggéey di ko versé te sama jëkkër mu suñu koo jëndal comprimé. jëkk sa jëkkër moom moomoon place ba. moomoon place ba place su nijaayam la te yaa ngi dégg mais nijaayam moo ko jox place bi mais li li lépp si mbokk la xaj. ba ñaaw njort ak moom keneen koo xam ne xale bu góor la da daan ñëw ci kër gi si jëkkëram di fa añee di fa reere di fa ndekkee ñuy dem bay séq affaire u caaxaan. toroo teg sa gët la wala. ma teg sa gët muy tàpp ak dugg ko génn keroog ba mu ko tàppee woo ko ca buntu néeg ba waa ji woo ma ñetti yoon fayu ko faalewu ko ndax yàgg naa leen sib sone pare ci moom su ma nuyoo du ma ko fay dara amu si palaasam di ko jàppale xaritam xarit ba daan daan na ñëw kër ga ba mu di fa ñëw guddi ak bëccëg ndax apparenteem la woon moo tax mu nekk xaritam mm, mais tàppante beeg yooyu amul déggoo de xaritam bi moom moo nekkoon apparenté moo nekkoon si place moo féete woon place ba di liggéey bi mu mat bi mu ko màtte laa mës a dem asalem dem di ko seeti keroog ba mu mujjee ñëw ca kër ga mooy ba mu taxawee di tàppanteeg moom ca robinet ba ay fer di wax ak moom ndaw si naan ko nee naa la bu fi ñëw woo ma téléphone maa ngi ak numéro téléphone te xam nga sama numéro bu ma indil coow waa ji naan ko garaawul booba def nañ ne nekkuma fa ndax woo nañ ma ñett yoon wuyuwu ma ñu continuer di def li leen neex pour ñoom nekkuma fi ba ñu defee ba pare ndaw sa root ba ko ma jël sama bag ñëw tëj buntu kër gi ba pare toog sama buntu nekk di leen deg di leen xaar ba minuit si guddi ndaw si di soog a ñëwaat ma gis ko tijji buntu kër gi ma ne kookan la koo ko daw ndaw si taxaw maa ko tey ma ne kookan la mu ne ma man la diw mu ne ma ne ko ah mu ne ma waaw ma doog a ñëw mu ne ma tijjil ma ma soog a jóg dem tijjil ko jour bi nga xamante ni nii si la xelam dem ndax jël li mu jël ëpp dafa ñëw dajji fenêtre xaritam ki nga xam ko tuddee taawam dem xaañ sama xarit ñu ne ko looy def ni mu ne sama jabar la sama mag bu jigéen génne ak sama mag bu góor moom laay seet fii si biir kër gi moom laay seet ñu ñuy yuuxu ñoom si kër gi yaakaar ni sàcc mu ne leen du ma sàcc man la yuusu sama jabar la génne bagaasam yi ak gaasam yi suñu waa kër ñoo ko génne lu tax ñuy génne sama jabar man nag tey lañ may mu mujjee gis si la ma woo téléphone si la ma woo téléphone ne ma mbay ak ma ko naa mu ne ma génn bi nga xam ne suñu waa kër génne nañ la ko te ñoom ñu ngi noonu yor seen biir kër génnewuñu seen i jabar ñu lay génn te man jeg de ku man nga fa fekk man mii ku fa sëy si man nga fa fekk te su ma bonoon am si kër gi fukki at ak juróom di fa euh, soxna Thiaba tabarkalla Mass euh, reportage yu démb yi gis nga tey dañ ko dugalante na wàññi temps bi nag parce que mhm. boo xoolee démb presque ñoom ñaar mat na vingt et quelques minutes mhm. kon ni nu ko def tey dana permettre ku bëgg a participer wala nga bëgg indi contribution wala leeral goo xam ne gii da koy indi muy ak gindi mhm. parce que sax même dëkkandoo yi ñu ngi seetaan mën na nanoo am xalaat bu nu indi ci rek lépp ñu jëm ci jàmmoo am na numéro téléphone boo xam ne dañuy wax 88 628 99 99 nga bës 114 mu mel ne Euh, soxna si euh, ki njëkk a wax njëkkali nee na euh, bi liggéey bi feeñee mhm. mu gis nañ ci palaasam dem na ba dikke ko naan sàngara mhm. yàgg naa naan mhm. te des fois wax wax dana jib te jubluwoo ci weer mais da nga cee jublu leeral ak gindi ki nga xam ne xamul mu mel ne làqu woon doon naan xëy na lu yàgg. Mhm. am na ci ndax d'après waxtaan wi. Mhm. xam nañ ne waa ji sax tukki woon na. Mhm. ku demoon bitim réew la. kon aventurier la. nii nii mën naa am wat na ci aventure. parce que ñu bëree bëri bu nu gisul lu nu xam il préfère ci biir kër sax da nga dégg ku naan je veux rester seul. laissez-moi bàyyi li ma. bu ma kenn déranger j'ai envie d'être seul yu demee noonu. Euh, bu fekkee ne mi ngi nuy xool moom Youssou Thiam moom ni mu mel. soxnaa ma ngi nii. mel na ni tey la ko gën a bëgg mhm. di ko jàmbat sëram mhm. mi ngi nii wax na ba jooy mhm. kon kum ci doon santiment wu culpabilisé di jéem a set yow lan moo ciy sa responsabilité ci dem bi gamin wi ak mhm. façon bi nga xam ne moo xew mhm. la ciy sa responsable yaa ngi koy jéem a jeex mhm. banaan mbaadu mbaadu kon day dem ba da ngay sentir ne kon moom xëy na Youssou bu ñëwoon sax ñii juboo ndeysaan xaw ma lan nga ci gis yow mas euh, baara xam nga dafa am euh, jàngat bu ma ci war jàngat bu mel ne ñu tegee ñaari reportage yi c'est pour permettre euh, aux téléspectateurs ñoom seen bopp ñu mën a juger ñu mën a xam fan la dëgg féete am na démb ñu ma woo ñu dëkk ca koñ ba may leen leer Mhm. ku ci bëgg leerul da ngay dugg ci ligne bi. Mhm. am loo leeral ñëpp déggandoo ko àtte. Mhm. parce que dafa am lu xaw a xaw a doy waar ci nen bi. nen bi ne euh, magam bi ne nen bi da koo jël bi mu jëlee nen bi toj ko ca la féeterlu ca la dàqali ko ak sagoom. femme bi jabaram bi nga xamante ne nee na ba muy naan naan naan moo tax mu taxali kook sagoom naan boobu moo ko xiir ca mu jënd ay nen di ko toj yóbbu place yóbbu place di toj. waaw foofu malentendu ngi fi bu leer bu bari. xam nga déjà euh, premier discorde baa ngoog. Mhm. beneen bi ñu ngi ñëw ci tàppante bi. Mhm. xarit bi ñëw ci kër gi mu ne da koo gis maanaam muy séq ak loo xamante ne jabari rakkam du yoon. Mhm. tàppante tudd na ci ay. jabar ji ci boppam nee na benn yoon la ma si seeti xaritam te jëkkër ji moo ko gunge moo moo ko doon indi ndax dafa ndax màndite gi mu faf màtt ko Mm. est-ce comprendre nga. Mm. muy deuxième disco point point de discorde bi. Mm. ba ca des mooy wàllu gàllaaj bi ñuy wax bi femme bi ne suul na ay gàllaaj mu woo sëriñ sëriñ bu sulli gàllaaj yi jabar ja ne gàllaaj gisu ko tegu ko bët. Mm-hmm. moom moo jël ab sëriñu njaago indi ko ca indi ko ca buntu kër ga xamu xamu lu ñu waxante te dañoo dañoo xaar ba mu dem ñu def ko ci ginnaawam. Mm-hmm. ba ca topp mooy place ba. Mm-hmm. place ba place su ndijaay ja la. ndijaay ja jël ko dénk ko jarbaat ba. jarbaat ba nattu dal ko mu feebar ndijaay ji jël en charge prise en charge bi hmm. ndijaayee ko def mais ba ca topp waa ji ci boppam jabaram nee na man maa doon débrouiller ak waa ji pour luñ ko fajee hmm. njaboot gi tasaaroo na li tubaab di waxe dislocation de la famille hmm. am na ca kër googu bu dee li nga wax sànq yuusu caam mi ngi ñuy dégg ak fu mu mën a nekk war na mën a bàyyi xel ci ñii mu dellu si leeral lii parce que lii tamit baara yàgg na ci kër diggante nit ak i njëkkeem hmm. diggante eh, tamante lu bon hmm. diggante ku nekk di jël sa mborom di ko teg wax wax ju ñaaw hmm. mais tey sàngara baara sàngara sàngara ci boppam dafa nekk lu doy waar parce que bu ñu jël rek lu xew rek ñu ne mystique dañ ko liggéey dañ ko yóbbu ci sëriñ sàngara képp ku koy jël tey jii mënuñu ko seedeel parce que mën na dem ba tàqali ko sagoom genre drogue la boo xamante ne nit ki mën na la mën na tax nga sa xel dootul nekk teg yow. voilà hmm. Hmm. waaw bu la neexee ñu taxaw ci xarit bi. Hmm. man yaakaar naa xarit su fekkee ne am na xarit buy màndi. Euh, dana ko fekk ci benn état bi. yóbbu woon ko këru boppam moom. wala ci hôtel wala ci auberge sax. ba defar ko ba mu mel ni mu war a mel ba mànditam rees ba mu sangu ba nite. nga wax ak moom waxi nit. moo gën di ko jël di ko xëpp ci ay mbokkam ba mu lay maat. parce que am na état boo xam ne nit ki bu ko nekkee waroo ko yóbbu parce que yóbbu bi dafay xaw a nuróog weeran ah. mhm. dafa xaw a nuróog ne kii daal ni mu mel nii na ko mhm. na ko yaayam gis na ko ay mbokkam gis te loolu mën naa am andi na ko jabaram gis ba bàyyi ko mhm. parce que man maa ko gën a bëgg jabar ji mën naa am tapp boobu alliance la boo xam ne bi di soxlu nit ki di ko weer di ko wëli pande di yàq deram yooyu yëpp li nga ciy jublu mooy du mu gën a wàcc yow ngay jéem a yéeg que li mu bëggoon wala li ko bëggoon bañ ko yow mu bëgg la mbaa nga bëgg ko mu nangul la loola erreur la boo xam ne bii à mon avis moo waral boo ma yóbboo sama kër bu ma yóbbu sama kër ba mu andi matt parce que bañ la matt bañ la waaye ku am état boo nekk bu la nit ki te gis nga dem ak dal na xale yu jigéen yi koy def ba buñ demee ci boîte pour mën a ànd ak tubaab yi wala ba seen moromu maam yi mhm. ak seen papa yi dañuy màndi mais bu nu màndee te amuñu kan doon wut mhm. du nu mën ñibbi fa dëkk ak màndite mhm. ci la ay booy di ramasser booy yi nga xam ne ñoo dëkk ñoom kese yor seen néeg ne serait que ñoom ñu toog fa ba seen mandité ñu maquillé wu waat mhm. ñëw seen kër ci état bu normal mhm. mën a défendre foo nekkoon naa la ko yaay da mhm. maa ngi xewu diw mais est que jàppoo ne jàppoo ne parce que li tax euh, mënu ko woon bàyyi parce que marché ku dee sa marché ba yaa tàgg sa tàgge sa bopp bu ko xarit ba bàyyi woon ca marché ba tey jii mu troublé comme ni jabar ji wax la mu def tournalu Serigne Assane man di di déconné est-ce que xarit boobu yóbbu woon ko këram Euh, le linge sale salaam en famille ñu ñu faj ko euh, këram kër kër kër waaja kër jabar ji kër jabar ja waaw mooy weer ko ci biir famille am voilà da sëram nee na xam ne day mandi waaw pour moom dañ ko liggéey mu doog a tàmbali mandi hmm. alors que mandi lu yàgg xam nga foofu yaa ngi sur roche parce que tey ji baar léegi loo jabar ji lu mu wax waaw jabar ji lu mu leer na nee na euh, Côte d'Ivoire la nekkoon fa la tàmbalee mandi soo hmm. yëg si fii kon jëkkër ji yàgg naa mandi waaw wax na ko ba wax ay jàng yu mu demoon fakkasaloo fii la daanu loolu def ko Ah. kon kon yaakaar naa ne. ba léegi ba léegi waa kër gi yëguñu de. waaw ba léegi ah est-ce que yëguñu. ah dégg soxna si li mu wax maas. ba baara boo amee boo amee mag euh, mag wala rakk juy màndi tamit. Ah. doo mën a taxaw ci tele bi di ko wax. dafa nga suturaal ah, ko waaw waaw ba tey. nga loolu tamit euh, kii la mënoon a mënoon a day màndi. Hmm. parce que boo waxee day màndi liggéey bi nga wax ne liggéey bee ko euh, dugal ci màndi bi kon liggéey boobu da koy dàq naan bi da koy dàq. waaw waaw waaw kon foofu foofu ci boppam li soxna si wax man ak li femme bi wax Euh, xaw na xaw na xaw na xaw na bon incohérence am na ci seen diggante mais li ci gën a doy waar baara li ci gën a doy waar damay ñëw ci jabaru jàmbur muy sa jabaru frère nekk ci kër gi nga problème am nga génn ko est-ce que njëkk yi war nañoo sa jabar fekk yow ak nga am feebaru xel dem waaw parce que tamit jëkkër ji moo am droit may baat mhm. mais njëkk li amul droit wax na ko nee na jëkkër nee na wax na ko ne boo bëggee ma may la sama baat mhm. mais je crois que tey jii moom amul droit may baat ki nga xamante ne mooy mooy eh, jabaru rakkam wala mu koy génn kër gi may baat moom ak xatal ko ba mu génn bokkul aussi si même waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. te bari na ku sumb tabax nit ñi ne du ko fi eggalee parce que bu ko fi eggalee mooy moom wala bu fi eggalee kenn du ko mën day jëti te bu yaatalee day puus nu nu génn fondement ñu tàmbali ñoom itam di fa suul mm-hmm. yow dafa mën ni dafa mën ni euh, aussi wóoluwoo xarit bi parce que waaw bu góor bi waaw ni nga ni ma gisee ni ma gisee nga def analyse bi taqaluma waaw mm-hmm. mais souvent ñaari wax mm-hmm. ñoom ñaar waaw li nga xam ne moom la soxna si wax par rapport ak li soxna sële tontu dama gis ne soxna si boo ko dégloo bëgg na jëkkëram ba léegi bu baax dëgg na euh, bu demee ba jaral ko naan sama jëkkër daf daan mandi mhm. mënoon na daanu ci facilité wu moom kay li ko def dañ mhm. koo liggéey mhm. maa moom la ñu dëddale maa moom la ñu fexe ba fexe nan ba moom mu dem man ma génn kër gi te loolu boobaa mënoon naa tonton teg njëkkeem li jéem ko mel na dafa wax dëgg ci côté wu yàgg naa mandi kii itam wax dëgg ci côté wu moom mus te gis mandité parce que mandité maas timidité moo koy waral lu ci bari Hmm, complexe waaw wala ay problème hmm. nga am benn problème naan benn biteel muy ñaar nga naan ñett ci biteel muy ñeent nga naan ñeent biteel fu mën tamit reese hmm. yaa ngi dépaale waat ci juróom biteel fu mën tamit reese rek boo dellu saatee juróom-ñaari biteel kon problème bi du du du li ngay fóon wala li ngay naan moo koy réglé mais da koy yokk léegi nag làqu ci gannaaw mandité timidité ak am kersa dana waral nit di ko def ba nga xam ne nag su màndee mhm. mën naa ñëw ci kër gi ñu ne moom da dafa kuul mhm. dafa jàpp njàmburam muy di génn di dem waa kër gi duñ mës a naanee ndox ne moom day naan waaw mais xam jabaram rek nag jabar nag xam nga boo mhm. fa naanee boo lekkee dibi ca àll ba tër si dana ko xam dana xeeñ waaye boo naanee leneen itam boo dikkee <laughs> boo tërsee mu xam ko xam nga sëñ Baara man côté boobu euh, munu ma ci munu ma ci munu munu xam munu ko gëm ko waaw parce que mu tax munu ma ko gëm le fait que tey jii nit kuy màndi ba ay xaritam xam ko nit kuy màndi ba daanu ci ay jàng ah. jàng boo xamante ni ñëpp dañ cay teew nga faqasaloo fiil ya daanu mm-hmm. ndax sab mandité mm-hmm. kooku tey ji mandité ku ne xamul sab mandité daf lay protéger mm-hmm. encore une fois ma répété ko la répétition est pédagogique sàngara tey jii képp ku koy jël ci boppam yaa liggéey sa bopp parce que day dem ba tàqali laak sago day dem ba dootoo nekk te mën na la dugal ci lu nekk ah parce que sàngara daanaka mooy ndey bàkkaar yi dama la nettali rek euh, xise bi ñu waxoon waa ji waa ji waa ji doon euh, bañ fen bañ a bañ a mooy ñu ne ko tànnal ci baa ñaa ñetti benn mu ne ah su ma du ma du ma fen ndax julit du fen du ma mooy ndax julit du mooy naa naan sàngara mais ba mu naan naanee sàngara fen na mooy na def na bàkkaar yëpp kon parce que li lay tàqalik ak sa sago tey jii baara hmm, mën na la dugal ci leneen te jabar ji aussi jabar ji aussi li ngay wax tey jii man je dëgg la wax parce que bu toogee tey ne sama jëkkër doon na naan avant lii c'est pour dàq liggéey boobu ñuy wax indi plaquette yu nen yi ne nenu xaatim bi mm. amul euh, mag ji li mu wax tey ji mag ji dafa leeral mm. ne nen dafay xaatim waaye nee na gisu ko mm. dañ ko koo wax jabar ji nag nee na gis na mu yor plaquette yu nenam di ko toj baara kër yi problème yu bëri tas na ci problème yu mel nii baara diggante njëkke ak euh, jabari rakam te xam waaw ñu du jël ki def na am na ku bëgg a dugg salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def waay. ñu ngi sant bu baax. léegi si jàmm. noo tudd ak foo ñu woowee. waaw maa ngi leen woowee Massa Afalem. waaw maa waa jooju ngeen wax noonu. Ah. ñoo taxaloo Kalaam. ndeysaan. sama waay la waa baax la. Ah. liggéey laa xamee woon jaamu yàlla. moom mhm. nag nag du wees. ci mhm. wàllu xalifa boobu ngeen wax. waaw. ndaw si jigéen bi expliqué wul mu leer jabar bi. waaw. parce que xaritam boobu mi ngi tudd Lamine. waaw bi mu feebaree fii ba problème. waaw jour bi la man xëy ma su nekkoon damaa xëy si maa ko yóbbu seen kër. Mhm. mais lan moom yóbbu ko seen kër. Mhm. bokkul ci lay ci leen wax ne dafa dafa doon di fa reeree ba mujj bi muy def noonu jabaram bokkul kii. Mhm. kii musul fanaan seen kër musul dëkk seen koñ. waaw kii asalaam cinq la dëkk. ñaar la quoi. da doon ca mbaar ma. di waa ji bu amee fii problème mu woo ma téléphone kër ni ma saa waay mi ngi déggoo fii. Hmm. comme que man yëmbal laa dëkk ma wootee ni Lamine dama nga jël ko nga yóbbu. ko yóbbu ko seen kër bi ñu jël sax di ko dugal sax si bi dañoo am problème ba dafa mujjee màtt. affaire bi noonu la demee mais Lamine moom ñuy wax noonu. Hmm. bokkul ak xaritam bi ngeen wax dafa maanaam ndaw si waroon naa leer foofu ba mu leer nañ. waaw waaw waaw nii nii la waaye ca marché ba la dëkk affaire am cinq xamul musul fanaan këram yuusu musu faa yendu. Ah, ñaari xarit la. ah ay xarit yu bari sax daal xëy na seen koñ boobu. que hmm. mu doom sax xëy na bokk la ko beneen xaritam boobu muy wax mais lanu nii maa moom ñoo bokk nekk ca marché ba hmm. man mii di wax ak yow. Hmm. maa ngi Youssou Thiam ñoo takkaloo place maa ngi tudd Assane Fall. Mbaye moomu di jabaram. bi mu tabaskee ba pare dem naa bi mu kawtee dem naa ba seet ko. ba waxtaan ak Youssou Thiam moomu. mais Assane boobu ba léegi jëkkul ci yéen seet si leen di fa jaar di xaalis wala muy waxtaan ak yéen. kan la muy as ki dem Youssou. Ah, xaalis bi waaw Youssou Thiam man am na sam benn sam benn booy bu ñu fii. waaw benn jour nee na ma gis waaw. muy muy muy dem noonu nee na boobu ñu sol yére la. nee na loolu moo taxoon sax wax ko dara. mais ñàkk normal gi. ñàkk normal gi sàngara si la wala da nga yaakaar ne am na leneen ah. lu ci rax. allo. ñàkk normal gi loo yaakaar ne moo ko sabab. xam nga nag wax dëgg yàlla xam nga man je suis mal placé quoi. Euh, mais yéen ñi doon liggéey moom est-ce que. sàngara. waaw man nag wax dëgg yàlla naan sàngara bi bett na ma man jour bu ko mujjee bu ko jëkkee xam fi muy naan. Mhm. Euh, bett na ma mais nag wax dëgg yàlla mun ma wax ni naan na ko naan bu yàgg wala daaw ko naan. waaye ñaata temps la nekk ak yéen ah. ñaata temps la nekk ak yéen. waaw yàgg man trop man def naa ci marché bi presque te lépp mi ngi nekk ak yéen te xamu leen ko ci naan. ah cest biir nag wax dëgg yàlla. Hmm. wax dëgg kese jotee. wax dëgg kese jot. te yàlla taxaw sa bàmmeel. Hmm. waaw am na benn rakam bu fi doon monsieur liggéey si fii mu si ma wàññi benn jour mu ne ma ah saa wax la moom ndax doon na xulóog jabar bi doon na ko dóor parce que dafa màndi woon. Ah, wax dëgg yàlla. voilà loolu moom mosuma kaa wax. loolu yàgg na waaw. moom moom moom rakam bu bu ko monsieur liggéey. affaire nen yi nu mu demee. ndeysaan ndeysaan collègue la mmh. dëkkandoom la ñoo sës place. Mmh. te sës place dafa rëy. Mmh. Euh, lim ci wax dëgg nga. dem na ba ci biir mu gis ne rek na wax dëgg rek. waaw dëgg waaw kon kon kon yaakaar naa ne point naan bi mën nañ ko tegee de côté. waaw waaw waaw parce li mu wax ni kii dugg bokk moom. jabar ji rek jox dëgg bokk ak moom place bi. firndeel na ni moom kon bu wax dëgg rek jotee te dëgg rek te yàlla tax. waa ji waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. salaam. waaw. yéen ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. waaw man Géejawaay laa dëkk. waaw. marché bu bees boobu laa dëkk fa laa juddoo fa laa yoroo. Ah. waaye uh, xale bu jigéen boobu noonu. li mu wax lépp moo nekk. Mhm. Mhm. ndax waa ji bi mu dalee jëfandikoo loolu. boobu Côte d'Ivoire la nekkoon. Mhm. loolu dëgg la man fa la ma fekk. ndax fa laa juddoo sama yaay nga fa sama papa nga fa. fan Côte d'Ivoire. waaw waaye soxna soosu jëkk ñëw. te muur kanamam. loolu mu wax. sosal ndaw si mhm. loolu amul mhm. parce que nit ku bon mhm. doo ñëw fekk koo xam ne buñ na laa tey exemple buñ ma waxoon ndax bëgg nga sëy kii man damay ne déedéet parce que nit ku nekk danga war a xool ku la yàlla booleel xam naa moo tax mu dugg si waa jooju waaye ndaw see li mu ko waxal dara amu si man nag sama wax du gudd ndax dama yàgg si ligne bi waaye dëgg-dëgg wax ne waa ji la nekkoon di ba ñu ñëw jël ko taxaw leen fa def seen micro mbedd mm. ngeen am lu leen leer ci ndaw su dëkk ñëw si mm. ku baax la ku bëgg jëkkëram la ku mm-hmm. tabe la ku yaatu la yow seen dëkkandoo nga wala wala wala wala mbokk yaatu tabe moo tax xëy na leneen lu ñaaw mu tegal ko si ku mu mm-hmm. gis def na la ku mu bokkal ndey ak baay mm-hmm. li ma leen bëgg xamal rek mooy wàcc leen marché bu bees ngir yàlla si dara danaa fa ñëw danaa fa ñëw ngeen wàcc fa def fa descente ngeen déglu bu baax moom noonu li mu wax ak kee li mu wax ngeen xam ne ndaw sële mooy am favori. parce que mais yow noo gisee noo gisee affaire am dara leeru si. mani mani moo tax mu bëgg ko bon. mani noo gisee ñu bàyyi marché bu bees beeg teesante beeg dàgg sant bi seet nan la ñuy dimbalee yuusu mu feeñ ñëw ci këram njëkkali toog. jabar ji toog mu jéem a dund dund bu normal parce que. jabar ji bëgg na njëkkali bëgg na. waaw parce que xam nga gis nga wax suñ ko waxee. Mm-hmm. tey ñoom ñaar rek dëgg mënu fa feeñ ci li ma gis. Mm-hmm. xam nga lan moo gën ma wax loolu lu tax ma wax loolu. pour maanaam soo leen demee di ngeen daje ku baax di ngeen daje ku bon. ku si nekk dina la wax xalaatam. parce que pour man du ñëpp moo mën a waxandoo dëgg wala ñëpp mënandoo fenandoo. Mm-hmm. di ngeen ci am lu leen leer. loolu rek moo tax ma wax leen loolu. parce ñoom ñaar rek boo leen gisee boo dégloo wax kee da nga jaxasoo nga dégloo waxu kee nga jaxasoo. mais ñun ñëpp a dëkk xam fa xam ñu wax la loolu. Mhm. waaw loolu téléphone baa ngi fii tali bi foofu laay jaayee. dëgg la suy wàcc fa la may romb. Mhm. chaque jour fa la may romb. gis nga loolu noonu muy jël butéel yooyu depuis mu nekkee Côte d'Ivoire la boobu seen yaay mi ngi dund. Mhm. loolu moo tax ma wax la. ya yàgg naa naan. yàgg na ko waaw. man dinaa fa ñëw incha allah. waaw d'accord jërëjëf jërëjëf euh, ku bëgg a témoigner aussi mën nga def noonu. 88 628 99 99 nga def 114. ñëw. dégg nga réaction ngi noonu beneen. Mhm. mais teesante bu gudd beeg dàggasante bi sax du ci euh, am sens. xam nga fi nga fi nga orienté foofu la. Euh, li ci gën a importance mooy lan mooy ki nga xamante ne dem na di jëkkër ci soxna si. ci beneen soxna si njëkk a wax. Mhm. kooku la ñu war a jéem xool solution buñ ko retrouver mhm. boo demee baara boo demee mi ñuy seetaan. boo demee tey jii naqar a ko génn ca kër ga mhm. boo demee gàcce moo ko génn ca kër ga mhm. boo demee daa dem ba mënatul toog ndax jabar ji ñu génne mhm. te jabar ji moo ko doon soutenir mu dem dem yoonam ne kon comme danaa ñàkk rek naa ñàkk lépp benn yoon kooku nag lañ jéem a fexe nu ñu ko dellusee ñu toog en famille régler problème bi jubaat jubaatde leen ñu toog parce que ñun euh, suñu mission yaakaar nañ la loolu la fexe bu problème amee ñu fexe indi solution ba ñëpp juboo waaw mais tamit euh, war nañ wax ci njëkkee yi tamit di génne seen jabar yi seen jabar yi euh, rakk ci kër gi. Mm-hmm. yooyu yooyu baara war jar na jar leeral la ah. waa loolu erreur la ndax. Mm-hmm. Euh, ci cas bii sax. Mm-hmm. non seulement njëkke la mais goro la. wallaay ndax moo fi nekk yaayu yuusu càmm mi nga xam ne yaayam dëddu na. kon moom waroon na toog ak ku a doon. toogaayu kii de. mère de famille. budul woon sama soxna. frère. Mm-hmm. danaa defanteeg moom waaye nag naa am lu may seet ndax sama frère. Mm-hmm. wala waaye nag naa am lu may seet ndax nawle yi. Mm-hmm. waa koñ bi ndax ku sañoon sa goro. wala sa njëkke ànd ak yow. yoral la say bool yorol la sa kaala di la toggal di la yàkkal di la fóotal loolu mooy sa sak. loolu moo rafet ci yow moo rafet ci moom. et puis tuuma bi dafa rëy. sañ baara tuuma bi dafa rëy. parce que lii tuumaal na la njaaloo ba pare. waaw waaw xam nga tàppante waa ji def la muy def génn ci euh, kër gi euh, biti. Mhm. femme bi root di sangu jeeg. tàppante wat dudd fa ay jaljali tuuma dudd fa rëy jigéen joo ko tuumaal rek. Mhm. yàq nga dundam ci lu bëri. waaw waaw moom lislaam sax dafay bañ nee na yow dong sax boo gisoon act bi. Mhm. soo ko waxee dañ laa war a dóor juróom fukki yaa ah na war. ki gis ngeen di ñeent. ñu gisandoo te yëgoowu leen. foofu la ñuy doog a firndeel ne loolu am na. kon euh, tuuma ngi ci. waaye bu dee même dafa gis muy dëgg mhm. euh, suturaalante ak woo ko yedd ko mhm. jabari jàmbur nga kii ngay waxal dafa na am na ku bëgg a dugg allo allo waaw sëñ Baara waaw maa bëgg a dugg ci émission bi bismillah yaa ngi ci biir gis nga euh, ndaw soosu mu yuusu waaw man Louga laa jóge sëy si fii Dakar Géejawaay ndeysaan gis nga soxnaam soosu mu takk muy mbay. waaw kooku jigéen bi bëgg a sëyee ngi noonu. Mm-hmm. te Youssou moom bi ma koy xam. Mm-hmm. ci naan laa ko mës a xamee. bi mm-hmm. may sëy si géejawaay. jabar ji baax na am na yërmande. yiw na. bëgg na boppam. te Youssou moom. keneen beneen jigéen bu mu ne bëgg na la. bëggu la trottoir baa ngi nii. waaw mhm. <laughs> leeral na boppam. wallaay wallaay xam nga soxna si. Mhm. Euh, yàgg nag ak Youssou. Mhm. mel na ni euh, muñal na ko itam. ci état bi nga xam ne moom la Youssou daan nekk. donte bu safaanu la waaye mel na ni muñal na ko. témoignage yu marché HLM bi nee na frère am ñëw na ne mandi na ba dóor ko. pourtant loolu lépp taxul mu wax ko. toogaale na ko muñaale na ko sëyaale na ko. mais li lay naan loo aussi. li lay naan loo mm-hmm. wala li la bàyyi ci naan mm-hmm. parce que am na jigéen ñoo xam ne euh, góor topp na leen mm-hmm. bay bay bay def lu raw parce que ndaw si yàmbaam lay doon doosam lay doon cocaïnam la daf koy soxla su ko dikkalee bu ko naanul day nekk en manque bu ko consommé wul day nekk en manque manque boobu nag moom ngay jéem a compenser di doxaani feneen pour defanteeg moom du mën a wéy nga muñ wala ngay naan wala ngay tux yàmbaa mhm. wala nga dugg ci loo warul dugg il me faut am am milliard pour que sëy bi mën a dem bam mu dugal la kaso mhm. mbaa nga tukki vingt ans wala trente ans mhm. kon état wu ndaw soosu itam euh, day am léeg-léeg jigéen tiye góor ci mberem mbese ak jonge parce que yow sa jëkkër a ngi feebar tëdd fi mu tëdd doom ak jox ak a comprimé mhm. nga feru takk jaljali ne ci biir kër gi mhm. di def bruit ba góor tàpp la mhm. aussi xam nga jigéen ñi tam réglé wuñu réglage bi nga xam ne moo waroon daal euh, baara foofu moom mënuma d'accord a war a mënuma d'accord parce que dangay ngay xool euh, baara ndaw si li mu sacrifice yi mu def yëpp euh, dégg nga reportage bi kii am na ku ko firnde léegi ci bi mu duggee mhm. nee na bi ndaw si bi waa ji tàmbalee naan boobu ma nga Côte d'Ivoire mhm. di naan mhm. moom ci boppam moo nekkoon Côte d'Ivoire ak waaja foofu ba mu ñëwee fii ci la takk ndaw si est-ce comprendre nga kon voilà da ko takkaale naan kon waa ji dem na ba naan nekk loo xamante ne tey jii euh, bu ko deful du nekk du nekk mais tey jii boo xoolee tey jii femme bi li mu muñ dem na banaan ci reportage bi dégg nga ko mu naan buy may dem liggéey danaa ko jëndal ay cigarette am naa ko jëndal leen lépp ngir bañ mu génn dem mhm. su ma ñëwee day yàkkamti ma ñëw ndax ma mën a waxtaan ak moom mhm. des fois jigéen bëgg sëy lool lool lool lool lool bëgg jëkkëram tax mu des ta sëy bi di muñ li te bëri na jigéen yoo xam bu nu ñu muñ li ah, mhm. bu ñu waxantee dëgg sëñ Baara bëri na jigéen yoo xamante ne lii femme bi muñ ñoom xalaatuñu koo muñ jëkkër juy naan di la dóor di eh, wër ci koñ bi wekk parenteeru jàmbur di fëgg loolu yëpp nga des ci ndax ngor ndax dix ans yi ngeen génn ndax quinze ans de mariage te li ci gën a doy waar mais mooy baar amuñu doom mhm. quinze ans de mariage mhm. amuñu baar teewul femme ba dawul mhm. gàddaayul demul fenn ma nga téye sëyam kon kii man li ma ko mën a jugeel selon les dires mooy maanaam jigéen ju bëgg jëkkëram la jigéen ju bëgg sëyam la lii lii rek njëkkee waroon nañ xool ci loolu damay dem liggéeyi lu tax may dem liggéey sama jëkkër dañoo duggoon maak moom cib natt natt boobu feebaru xel dal dal na ko dab na ko munuñ koo fay man mii di jigéen foog ma génn dem uti liggéey ngir mën a fay natt woowu mais baara kooku est xam nga jigéen kon gàcce nga laama kooku xam nga jigéen itam ci comportement am dof loonu góor ci nan ci doxalinam ci nekkinam mhm. ci sëy bu muy sëy yow te du tas mhm. du dem du dikk mais do parce que xarit ñaari xarit la ah. benn xarit bi mooy ki ci kër gi te miin kër gi tey tàppaate beneen xarit bi mooy ka ca ka ca place ba mhm. te yóbbu woon ko mu màndi mu màtt ko mhm. te jabar ji demoon seeti ko mhm. ñaari est que que tàppaate am na ba pare ah mais bien sûr ah da ngay gëm ne aussi ndaw si du dikk ba fii toog naan dama ko sàcc bett ko mu koy tap loolu itam da nga koy jël en considération avec des pincettes mais au cas am na takkeenu fer wi ci ëtt bi jaabante bi ak tëñ laay ak mm-hmm. robinet ak voile yi jigéen yi xewal léegi ak jonge lu bi mm-hmm. aussi ak liggéey bi mm-hmm. sa jëkkër feebar na yaa war a gàddu kër gi loolu foog nga posé foog nga dal foog nga diiñ foog nga fier foog nga am looy bañ baara sinon looy indi ci kër gi da lay daal di yitteel a yitteel a yitteel ba boo defu ndànk sa jëkkër dana kontaan parce que mi ngi tux mi ngi naan dana am ay soxlaam yu mu bëgg a faj yaa ngi koy fajal. Mhm. mais ñi ci des ak ñoom nin lay seetloo. Mhm. aussi mën na leen a bañ a neex. Mhm. te bu leen neexul te sa jëkkër newu fi ah doo fi nekk nag di yàq seen der. xam nga parce que kër gi du sa kër jëkkër seen kër la. ñoo sa jëkkër a ko bokk. day am nooy doxale ñu yaatal la mu am neneen noo bëgg a doxale ci kër gi ñun la eh lii du fi am. ci biti kii sa xaritu jëkkër la sa jëkkër wéeru dina. bu mu fi ñëwati rawatina gis naa. Hmm. xam nga dafa am lu olof wax. waaw ñu jël ki ci ligne bi. am na ku bëgg dugg def naa. allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ maa lay ziar. ñu ngi laa delloo ziar baax. waaw du ma bëggoon dugg ci émission bi rek. bisimilah. waaw xam nga man li ma ciy wax. Hmm. mooy maa ngi ko doon suivre lu bëri li nit ñi wax ñun xamuñu ndegam am na wala amul. Hmm. waaye li ñu gën a mën a leer daal nga xam ne moom lañ war a def moom mooy ñu gis ki nga xam ni moom moo dem mhm. delloo ci kër gi mhm. ñu dëkk ca kër gi nekk nga xam ni ñëw fay ñëw di tàppanteeg ak di def yoon comme que ñoom dëkkuñu ci kër gi ñu toog seeni kër mhm. allo. waaw waaw ñu ngi dégg bu baax ñooñu ñu toog seeni kër. Hmm. te may ñaan aussi képp koo xam ne yaa ngi dugg ci émission bi di ci wax nanga nga wax luy defar. Hmm. na nga wax lu rafet. parce que suñuy ñoom ñëpp suñuy mbokk lañu. Hmm. ñu am loo xam ni moom moo leen féewale. boobu ñun ñëpp dañ ci war a jàpp. ku ciy dugg wax ci lu rafet ki dem bu ko déggee. mën a ñëw li nit ñi wax positif na. jigéen bi ku góor ki bu ko déggee xam ni li ñuy wax positif na ña ca kër ga buñ ko déggee hmm. xam ni li ñuy wax positif na hmm. ba nga xam ni koo xam ni leneen wala xalaatoon nga ci leneen hmm. nit ñi jox la xel mu rafet boo mën a doxalee nit ñi bu ñu amee seen problème posé ko dañu bëgg solution ba nit ñuy dugg ñëpp dañ leen di essayer apporter solution bu ci nekk xool li gën a rafet yow nga def Mhm. loolu rek laa amoon lu ma ci wax ñeent allah jërëjëf voilà baat baa ngi noonu xam nga dafa am lu ma lay faral di wax baara mhm. olof dafa ne charrette mbaam du ngexaw la koy dawal mhm. mbaam duuf na am graisse waaye matul ndawal gis nga tubaab dafay wax ne tey ji kii veut son chien l'accuse de rage dafa nañ nekk ci société électrique boo xamante ne ku def lu baax ñu wax ko ku def lu bon it ñu xarab la tey jii bu nekk ci kër jubboowul ak say njëkke wala njëkkee yi mën nañoo sikk wala yow tamit nga sikk waaye buñ la bëggee tuumaal lu nekk daanu ko yàq sa der bi mhm. pour lan rek pour wane ne kii baaxul mhm. parce que déggoo déggoo parce que dafa am euh, loo xamante ne baar xel mënu koo jàpp mhm. ca reportage bi femme bi wax génn nañu ba ñu génn lim na ca li muy seet li doon seet ceeg yooyu yëpp mais kii dugg léegi wax na l'essentiel de l'émission mooy nañu fexe ba ki nga xamante ne tey jii moo dem mu nu mu ñëwaatee ci kër gi jubboo am juban ci wax waxam dàggasante goo xamante ne mooy loolu waaye mhm. nag tamit wax dëgg tegg tuuma la walaay walaay mën nga tàggoo maas waaw suba ak jàmm waa baar xanaa euh, di gërëm euh, téléspectateurs yi ñu suivre ju baax ak baay yu baax ji ma bàyyi kër ga ak euh, soxna si di gërëm Serigne Medoune Seye borom tawféex di ko gërëm bu baax ak Cissé baay di gërëm aussi maanaam ñi nga xamante ne mooy ñi ma àndaloon ci reportage beeg mami euh, caméraman beeg ak yooyu yëpp mm. ak monteur yi yëpp di mm-hmm. leen gërëm bu baax di leen jox rendez-vous suba insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Mass euh, di la jox rendez-vous suba bu a ñëwul mm-hmm. même bu ñëwee sax ñu bokk plateau bi eggale ko <laughs> caba kenn xamul ci <laughs> ci lan la nekk caba caba naati waat da nga am jëkkër di ma ko nëbb <laughs> déet waay amati jëkkër di ma yàlla euh, nu yàlla jàmmal xéewale nu suturaal nu mhm. euh, waa ji appelam bi sax daf noo fekk ci ñu ko doon wax ñu ngi mhm. doon wax ne nanu fexe ba ñu mhm. juboo ba kële xam ne juboo nañu ba mu ñibbisi mhm. ñu àndandoo seet nan lañuy def ba mu delluwaat ci sagoom mhm. waaye delluwaat ci liggéeyam wallaay wallaay comme ni nga waxee bu seetaanul am na ku koy seetaanal dana ko mën ne kaay ñu dem surtout mu dem marché bi mu nekk ndool ak ñooñu professionnellement ñooñu jéem koo jàppale mu dellu suwaat ñëpp jàpp ci rek voilà ndax euh, li xew bari na te ku nekk ak la ngay demee ak namu la dikkee te yàlla rek a xam yàlla na muy jàmmal jaam yi yàlla na nu jàmmal waxri dawaana ani alhamdulilahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba suba ak jàmm